itam ñuy ñaan wërsëg jarul yàkkamti bu jeexee rek nga jóge fi ñuy si nga xam ne ñooy indil nit ñu xam bakkan mu toll ci yàlla bakkan woyofal nañ ko lool bakkan woyofal nañ ko lool te bakkan woyoful ci yàlla bakkan même même même dañuy wax ni même picc mi nga rey te jëriñoo woo ko bu ëllëgee di ko lay ak sa borom léegi nag rey nit ak naan ndox mooyam kenn du ci wax mais ku ko def man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka annama qatala annaasa jamian kon lu ñu jëm si Tiwaawan ak lu ñu bëgg-bëgg oomle bu mu tax ñuy daw bay jaar ci suuf di dublante ci suñu biir nañu daw ndànk rek daw ndànk dal ndànk àgg fa nga jëm ndànk kon bu ñu yàkkamti ci wërsëg wërsëg mooy li nga am te jëriñoo ko ar risque dañuy wax ni man tufi abihi li nga jëriñoo mooy sa wërsëg li nga yor te jëriñoo woo ko du sa wërsëg kon bu ñu tax di daw ba daw loo xam ni lii dafay ëpp ndogal yàlla nag kenn mënu ko arrêté waaye bu ñëwee bu dalee jàmm amee rek jàmm rek mën na ci am waaye la cay faatu ci bakkan kenn xamul na mu toll léegi kon sëfoor si bu ñu yàkkamti bay jël yenn xel yi di di wutiwaat client tax la nga delloog yenn xel yi ba dootoo xam li ngay dox yooyu yëpp nañ ko bàyyi mbokk yi te moytu te dewaat ndànk indiwaat nit ñi ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm ñëpp bokkuwaat defarwaat Sénégal nekkaat denn nekk moom daal fa tabaarakallaahu bu ma toppee damay juggudal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.